ayca mbokki internet yi ñu ngi toog ak Fifty ginnaaw bi ñu jógee ci am Amdy Moustapha euh, Fifty maa ngi lay nuyu. maa lay fay ah waa sud yëpp rawatina maa jiital nuyoo bi si maas ah, sama xarit sama seex ak Idali ak famille bi ah. ginnaaw bi ma sant yàlla sant Yonent bi sant sëñ Bamba di nuyu sama yaay Awa Samb ah, di nuyu ñëpp di nuyu Wally Seck ay njabootam. parti fi ñuy dooree waxtaan bi mooy actualité bi euh, Wally Seck invité nañ ko foofu nga xamante ni moom mooy si euh, Paris euh, ki ko doon amal muy Sidiki Diabaté alors noo jàngatee présentation bi nga xam ne Wally Seck jot na ko faa def. bon wax ji sax yëpp am di wax na ko invité nañ ko ak invité yéen xam ngeen lépp lu demee parce que influenceur boobu di wax tur la bëgg si Wally moom heure bu fayee rek foog mu laal Wally mais day jeex quoi moom bu ne moom nee na taalibe Serigne Touba la na topp li mu gëm ñu topp li ñu gëm. mu neex mu naqari Wally moo fi ne xam naa lii boo gisee sax mun naa ne ni ko neex du ko neex ñu ngi koy tuub di ko jéggalu mais mënul ñàkk parce que ñun Wally ñun say frère lañaa ah. suñu patron nga yaa ñu defar lépp lu ne kon tey jii mënuñu benn nit chaque jour ça fait des années des mu jàpp sa nopp bi di wax guddeeg bëccëg Wally nii di wax di di di wax ñun dañuy wax turam buuse la ñuy waxal man fii ti maay wax ak yow am na yoo xam ne dafa ñaaw si doomu Adama Ndiaye c'est moom day jaxase ah waaw bien sûr mais chaque jour jàpp benn nopp nit nii nii mais yéen gis ngeen loge yi kan moo nekk si loge yi mais kan moo nekk si loge yi laa wax mais yéen lay laaj loge waa lu luñ si bind waaw mais yooyu sax jarul sax ñu koy détaillé parce que Boucher lii la si bëgg nit ñi di wax si moom moom lii la lii lii kese la si bëgg non non non moom moom artiste am yàlla ko defal jàmm defal ñëpp jàmm ñun waal lañ am mu neex mu naqar waali moo fi neex ku ko bañ nga génn Sénégal dem feneen waaw mais na arrêté quoi am na yoo xam ne rafetul moom Baye Fall la taalibe Serigne Touba la am na yoon yoo xam ne war ko sax di ko doxee ñu ko ñu koy dig ëllëg Sidi du fay day xool ëllëg ay njabootam la war a xool am yoo xam ne rafetul dafa ñaaw xam nga mais na arrêté quoi am na yoo xam ne rafetul ñun bu ñu neexee lu mu def ñu toog suñ kër woo ñu neex ñun Sidi yëpp ku si woo da ngay ñëw ni mu koy defee mun nañ ko am nañ ko mun nañ ko mais am xam ne rafetul moom kilifa la topp artisam def lu muy def fii Wally moo fi ne mu neex mu naqari. mais diggante Wally lan moo ci dara nekku si buzz la bëgg ah déggoo leen ma moom bu heure bu laalee Wally am buzz mi ngi jógee fan yi passé si benn si benn combat bëggoon ñu fay affaire boobu moo tax muy laal Wally ku bëgg da nga laal Wally lool force la loolu yàlla moo ko fi def loolu la bëgg buzz rek la moo tax muy laal Wally bu laalu fu mu amee buzz mais foog mu laal mun a am buzz fu nekk nii ñëpp a wax si moom loolu la bëggoon. loolu la bëggoon ñëpp di wax si moom mais na arrêté quoi moom Baye Fall la ab ab taalibe na yoo xam ne jomm sax ñu koy def ñu koy dégg ñu koy wax loolu am lu ñu koy dénk quoi. Euh, tey ñu wax ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck moom mooy parrain moom mu weddi ko nee na Wally kenn invité. Wally fan la génnee est ko invité foofu. Wally fan la génnee loolu loolu loolu détail fan la génnee yéen laa koy laaj digg Bercy la génnee te ñëpp bi mu ñëwee gis ngeen si digg jàpp yërëm na ko feccal. saal bi wéet Wally yëngal saal ba mu yëngu kon moom na arrêté quoi am na yoo xam ne rafetul bu bëggee dara si Wally na ñëw wax ak nit ñi bu ko bëggee Wally jàppale dañoo Wally mu jàppale ko mais pas nii la koy defee moom moo njëkk a yëg seen Wally Amérique Wally ko xaalis gis ngeen lépp du ko weddi moom moo njëkk a yëg seen Wally Amérique na fa Wally may ko xaalis bëri am ak moom jàmm moom ay nitam yëpp ay xaatu waa ay Wally la bëggee daa may xam ne rafetul quoi te dawal lépp teg si yoon xam nga moom mu ànd ak artiste mu ànd ak lañ xam moom lañ am moom lañ gëm moom lañ àndal ba yàlla may li mu koy waale bu bàyyee way si yëpp ay kenn dootul déglu kenn. Ah, kay ñun dañuy continuer di liggéey. mais foo ñu amee buzz yéen. waaw ñu ngi liggéey kat. non non ñu ngi liggéey ni ngeen liggéey seen liggéey loolu dëgg la mais fu mu nekk waaye buzz buzz buzz mu leen jox keneen lu ko def si Sénégal si jeunes jeunes talent yi kan la. Diop mi ngi moom yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla may ko gudd fan. ak ak ñëpp ak ñoom Irena ñoom ñëpp yàlla yàlla defal jàmm mais ñun kenn lañ xam muy Wally xam nga loolu mooy accident bi moo leen woo ñu en tout cas fu mu nekk nii ñu ngi ñaan Wally Seck yàlla dafa ko jàmm may ko gudd fan di wax nii man damay tur tur buuse laa wax. non du attaqué de am na gars yi dañu nekk fi wax ay influenceur non non damay wax buuse na arrêté quoi na topp liggéeyam moom bu dee mbër la wala influenceur na ko topp yàlla dafa ko jàmm. te topp li muy topp mais moom bàyyi ñu suñu artiste am na yoo xam ne rafetul topp nit ça fait des années di wax ci moom guddeeg bëccëg matin midi soir pour lan pour ko Wally def man ama boo xam lan mooy problème bi na arrêté quoi parce que moom taalibe Serigne Touba Serigne Serigne Touba taalibe Serigne Touba du tooñ te moom mi ngi tooñ ñaari influenceurs yooyu muy Boucher ak ki nga xam ne moom mooy ñaaxarañ loo euh, seen guerre bi nga xam ne ñu ngi ko doon guerre dégg nañ ñaaxarañ loo wax ni Wally Seck moom ci hôtel résidence dañ ko dugal waaye ki nga xamante ni moom moo di euh, Sidi Diop moom ak garde koor yi lañ boole est-ce que tamit loolu rafet na. non man loolu des na maa leer du ma fen quoi parce que damay wax lu ma xam man non non man loolu des na maa déggu ma ko wax ma si Wally Seck mooy Bercy bi mu yëngal fu mu ne ñëpp dox Wally Wally muy mel ne si Wally mu doon tëgg Bercy Wally ak Sidi Diop leen def. Euh, ak ak kii nu sax euh, baal ma Sidiki Sidiki Diabaté nii lañ def xool waaye bu mu duggee seen bi ñëw na yëngal Sidi Sidi Diop ñëw na yëngal loolu mooy àdduna mais am nay wax yoo xam ne rafetul Boucher na bàyyi bu bëggee bës ak foog mu laal waali loolu dafa war a arrêté moom na topp yoonam waali topp yoonam c'est ça quoi moom taalibe Serigne Touba la non ban jaxase non loolu du ma fen man des na maa leer man loolu dara leer ma man waali moo ma ñor danga may laaj ci waali ma wax la ci waali yaa may dégg non man loolu ñorum man dara leeru ma si en tout cas li may wax daal mooy waali yàlla ko defal jàmm may ko gudd fan yaay waali yàlla moo ko fi teg yàlla na yokk yàlla bu mu xew yi mukk jusqu'à la mort yàlla na ko yàlla may disque d'or bi muy wër yàlla def ko mu ñëw si jàmm xam nga ñëpp feete ko si ñëpp ñëw waaw Boucher bu leen bëggee yëngal rek yëngal leen Boucher kese moo génn yéen ñëpp yëngal parce que xam nga moom li leen bëgg bës bi dañ ko koy may sarax laa moom non du kee moom loolu bëgg parce que heure bu ñëwee laal waale moom taalibe Serigne Touba la man bi ma gisee moom def naa deux fois la xam ma trois fois yaa may déglu moom heure bëggee bës rek foog mu laal waale te du noonu waale defu ko waxu ko ñun nag lii xam naa du neex sax waale man kenn xamee ma lii mais am na yoo xam ne toog suñu duq rek jàpp suñu ñàmbur ñuy xas suñu artiste ñu mel ni ñu am ay nit non non non non ñu wàll am ku laal waaye daf ñuy laal yaa may déglu yéen xam xam luy problème bi wala ma génne vidéo ngeen xool ah mais Wally fan la génnee man la laay bëgg xam fan la génnee loge am moom loge loge am samta loge dañ ko jox foofu woo nañ ko ak woowuñu ko loolu moom la concerné ñoom ñoo ñu wax loolu mais en tout cas ñëpp ñi fa demeen waa Paris waa maa ngi nuyu ñëpp ñi fa demoon xam nañ dem na way na yëngal na public bi ñëpp nga waali waali waali waali ñëw na jeex na c'est ça la c'est quoi le problème. ngir ñu bàyyi la nga dem ndax Wally Seck moom itam euh, jamono ji warta waaj lu mel ni Bercy ba nga xamante ni du ñu mën a langaamu ci euh, li nga xamante ni moom la si Diabaté. Wally tëgg na Bercy da ngeen fàtte. mais bien sûr tëgg na Bercy da fàtte mais Wally bi muy tëgg foofu ban ban année la ban année la Bercy Paris ban année la waaw bi mu mujjee Paris 2016 xool nu mel gis a fermé lañ def Wally xam na Paris de te xam na Saly balaa la mooy xam ne Wally la yàlla ko may bi mu njëkkee ñëw si euh, saal bi Wally Wally nga doon dégg Wally Wally na ko na ko gars yi nangul li ko yàlla def lu kenn de yàlla moo ko jox te xool day gën a yokku Wally boo wax si moom day yokk yow ngay anière am yoo xam ne rafetul quoi kan si non man. c'est <laughs> na ko yàlla defal jàmm moom yàlla na ko yàlla soppi yàlla ma ko gudd fan bu baax li mu bëgg doon influenceur la xaw ma lu mu doon yàlla na ko yàlla defal jàmm mais ñun en tout mu neex mu naqari fii Wally moo fi ne waaw ñun moom lañ xam moom lañ gëm moom lañu àndal ba muy bàyyi way bu bàyyi way nag man pare naa si musique waaw ma leen di nuyu waa Sib yéen ñëpp di nuyu Mass sama xarit Idali ak ñi ma xam ñi ma xamul di bëgg naa ci yéen kontaan naa ci yéen Wally forever disque d'or forever maa ngi nuyu ñëpp nuyu farama leen lii maa ngi tuub di jégalu nag ci kàddu gi ah yàlla ma yàlla jégal jégal Wally Seck yàlla ma ko gudd fan fa jaajëf ca mbokki internet yi ñu topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ñu ngi toog ak Amdy Moustapha moom nag ràññee ngeen ko mu faree ci Wally Ballago Seck Amdy am maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar maa ngi lay fay bu baax a baax a am di euh, sa relation ak Wally Seck pour ñi nga xam ne ñoo lay seetaan te xamaguñu. Ah. waaw mais euh, moom li naan li lay nuyu ñëpp seen tur ak seen sant ba pare ah di leen remercier ba pare xam nga ñaan sama diggante Wally Seck mooy lu ma wax chaque rek ku ma xool da nga si da nga si bees laa ci Wally Seck bu muy fubal bu muy nekk minime loolu yàgg na ba maa ngi ànd ak magam moomi moomi Seck ndem si yàlla yàlla na koy moomi moo tax ma xam Wally donc man Wally Seck tey bu ma ko gisee tey muy way dafa ma bett parce que si football laa ko daan gën a xaar si football laa gën a daan xaar Wally Seck donc moo ko gisee muy way nii man dafa ne a ah, daf may impressionné mais nag après dara mënu may impressionné si moom parce que lu ma xamoon bu muy xale ci moom dafa mës a am sañ-sañ bëgg lu rafet osé gëm boppam loolu moo xam naa ci Wally Seck kon boog dama bu ñu ma ñëwee laaj ma si Wally sawar parce que en fait du faral di def nii parce que fi ma toll si Wally Seck te tamit kilifa xam ne mu wax donc Wally Seck dafa ne nit xam ni yàlla lu mu naan mbër mu yàlla samp doo daanu ku si ne Wally Seck boo bëggee jàmmal sa bopp pour man da nga koy nangu lu ko yàlla def parce que ku nekk rek suñu borom mooy joxe ay xéwaloo moo xool lu ko soob si Wally mu def ko donc bu doon nit mooy joxe kenn du am kon man nañ ko ndokk nañ ko ndokk rek te gëm na ne yàlla la yàlla moo ko jiital te du mu a daanu si kàttanu yàlla suñu borom. coow li ñuy wax si Wally ko tout le temps rawatina nag yenn kàddu yu nga xamante ni dañ koy faral di dégg ci moom yow wax nga ko yàgg nga koo xam tey boo déggee ñuy wax yenn kàddu yu nga xamante ne ay kàddu yu doy waar lay doon ci moom lan la lay def. kon yan yan façon kàddu nga may laaj. coow na fi ragal loolu bu mu ñu jaaxal parce que fii kuy dem rek la ñuy coow ah ku nar réussir ëllëg ngay dégg ay coow la ma benn paa waxoon ne ma ku ñamul coow bul fexe bul bul feeñ kon kon wàllu ko fa ko mu dem parce que xam na te mu woon mu dem bu muy door kenn jàppale quoi ah, moom kese la ñun fin temps la kon moom moom fi mu tool nii man sama xalaat bu gàtt ne ah coow li ñuy wax ni man kon yéen boosoo man na bëgg ñu may laaj si sañ-sañ. mën nañ toog ci sañ-sañ mais lu amul sañ-sañ man bëgguma si si wax si sañ-sañ nga may laaj ma tontu la sañ-sañ ak loo ma bëgg laaj laaj boobu man ma tontu la ko parce que yaa ngi yaa ngi may commencé tàngoor quoi di tàng ah waaw d'accord alors gis nañu li nga xamante ni moom moo mujjee xew bi nga xamante ne nii euh, Sidiki Diabaté mi ngi doon def li nga xam ne moom mooy berse bi euh, ñu gis coow lu bëree bëri bi nga xamante ne am na fi ndax euh, moom bi nga xamante ni yéeg na ci kaw chaîne bi dañu gis que bi nga xamante ni yéeg na ñu ko doon yooxoo mais dégg nañ benn influenceur mu wax que ni li nga xamante ni moom lañ doon wax du Wally Seck Mali lañ doon wax loolu noo ko jàngatee. waaw boo nee Sidiki Diabaté ne Wally Seck du ñoo bokk yoon mais nduroowuñu du ñoo bokk yoon mais nduroowuñu ñoom ñëpp ay star lañu ay waykat lañu mais fii da nga naan Sénégal danga nga naan actuellement nii Wally Seck wa muy muy Sidité Diabaté muy keneen ki euh, la booy la keneen ki euh, waykat bi Sidi Diop ay rakku Wally Seck lañu parce que bii ba fi Youssou Ndour nekkee ñaata waykat boobu nekk mais di nga ko ko topp ci gannaaw mais instant yii nii nii boo nee roi des arènes Wally mooy roi bi. waaw ak ku mu munte metti mooy roi te ñëpp ñëppay topp ci ganaam ba keroog yàlla di def lu muy def ci Wally Seck waaw parce que moo ko wane ba pare yàlla jiital ko parce que il fallait mu doon ko parce que social la parce que lu ma am serafal naan wax léegatum kese naxum tey bay jëf jël Wally day jëf day jëf maanaam alalam du ko bool ak kenn te yow mi toog di journaliste bi te tey boo daan jël sa di koy bokk nit ñi foo nga am lii nekk ci loxo bi bu génnul li ci kaw du du ñëw kon Wally Seck il fallait mu àgg ndax xol bi dafa sensible xol bee rafet. mais concurrence am ak Sidi Diop. non ak Sidi Diop sax du mu si faral dox parce que man Sidi Diop yàlla dafa def nii musuma ko gis dama ko gis si tele mais booy bi yaru la mais ñu ci tuuti ñooy wax lu ñu xamut mooy ku si mel ni xaw ma ni ñu koy waxee buuse buuse buuse moom moom xaw ma mbër la xaw ma tiktokeur la xaw ma influenceur mais buuse lan la ko Wally Seck def man dama koy laaj ah, man mu buuse musuma wax soo xam xaw ma ko ah musuma ko gis. moom ko mujjee mujj gis mooy ba mu gisee muy mu ngemb ci làmb bi di bëri ñu ne ma kii mooy Boucher ma ne ma Boucher moom lu muy liggéey donc man Boucher xamuñu mosuñoo gisante man lu ma koy ñaan ak lu ma koy xelal lu ma koy ñaan lu ma koy xelal mu nangul Wally lu mu doon Wally du noonam Wally xaritam la Wally gaynam la Wally amul noon ak kenn Boucher man lu mu lay wax man Amdy Moustapha man maa lay man maa lay sànni message bi man Amdy Moustapha lam lay ñaan bu dee na nga Serigne nga yaakaar wàccal booy bi parce que booy defuloo dara dama bëgg nga wàcc ko te yàlla rek a tax te nga topp sa artiste dund sa artiste. kon quoi maa ngi dégg TikTok bi gis naa benn affaire yoo xam ne Boucher mu naan yooxuwuñu waale mais nopp day dégg lan mooy Mali Mali ak waale dafa dafa bëri dafa bëri di différence waale Seck lan daan wax moom bu waxul waale Seck sa jinne wax waale Seck Boucher kon bu na bàyyi lu muy def. waaw no parce que dama gis chaque jour ma gisee TikTok bi rek damay gis Boucher di wax Wally Wally Wally Wally Wally te nangu day jël bu dee dafa am li nga soxla si Wally Seck ñëwul ñu ànd sa la famille wala bu dee da nga am na loo soxla ñëw laaj wala bu dee am lu foo bëgg a jaar Wally si jaru ngay jaar ci Wally ñëwul ci ñun waaw showbiz tamit mi ngi ci mais après dootu ndur showbiz xam la lay mujj après soxor du showbiz parce que lu nekk nga yàq booy bi te booy bi mi ngi ci yoonam nag xam li nga koy ñaanal waxuma sax ay ay mu jël dix bi indi ndamu Sénégal Boucher man maa la ko ñaan s'il te xam la nga war a def topp ci gannaaw booy mu indi la ndam li tegal la ko parce que ndam li ñu ñëpp la ni nga Youssou Ndour sin papa indi na ko ñoom Viviane ñëpp indi na ko Wally Seck dafa war a indi lu raw dis d'or kon nag ngay mën a ñaanal mu indi dis d'or bi ak jàmm ak salaam mais yow Boucher mënoo tere Wally Seck indi dis d'or de te yow Boucher mënoo tere Wally Seck am nu mu am de day dem dafa am ñaanu ndey am ñaanu baay am ñaanu mbedd bi kon saa doo noppal sa bopp te Serigne Touba tax axlanati ah am yow yow da ngay da ngay waaw moom day dem day dem yow nga ñëw. c'est bon. am di yaay ñëw nii. c'est bon ginnaaw moo sant yàlla sant yonent bi